fekk baax fii ci diiwaan bu Podor jamono ji nag ñu ngi ci wàccaayum jaayum bile soble waaye nag ak tiitaange képp lañ ci gis jàpp nañu sax ñi doon jógee bitim réew ngir daal di ñëw jënd bile soble jamono ji ñëwatuñu ndaxte jafe-jafe yu ñu dund ci jéggi bile de. macha allah mucc na ayib euh, am nañ ci soble macha allah waaye lii gàllankoor bi mooy ba léegi mënuñ koo jaay. ndax amul kenn benn njëg boo xam ni moom la ñu gis fii amul benn jëndkat bu fii ñëw pour jënd si soble bi te ñàkk jënd soble gi mën na indi jaxare bu rëy ci biir euh, département bi ndax nit ñi dañoo leb ci mutuelle yi dañoo leb ci banque yi. ñu jàpp ni sax fu nekk nii saak bu 40 kilogramme bu doon jar ñeenti junni ak ñeenti téeméer fu mu nekk nii luñ koy jaayee jéggi na dayoo. ndaxte saak bu nekk junni wala sax juróom ñeenti téeméer ci suñuy koppaar. ñi nga xam ne ñoom ñoo daan jóge ci sous bi mooy ñuy jóge Mauritanie. ñi jógee Gambie ñuy jógee ci sous-région Mali Guinée yooyu ñoom ñoo daan ñëw fii jënd si soble bi pour yóbbu ko waaye gis nañu ni euh, avec euh, les douaniers ñoom am nañu ay jafe-jafe ci jënd fi soble pour jàllale ko ñu ngi ñaan ci ministère du commerce mu jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy wàllu jënd si soble bi pour ñu yombalal leen ñëw fii ñu yembalal leen dem bi. ñoom ñi lay jaaykati soble nag ñu ngi yuuxu wàllu njëriñ ju yore lépp lu jëm ci wàllu njënd ak jaay ngir rek mu daal di yombalal ñi nga xam ni dañuy jógee bitim réew ngir ñu mën a ñëw jënd ci bille soble fii ci Sénégal.